ba naa lim li may liggéey Sëriñ Tuubaa suñu borom kàttan la ko defal ko tawfeex mu ànd ak ak taalibe yi mu ko sobe di si toftal rek Sëriñ Sidi Mbàkke mu Cheikh Mouhamadou murtala mu nga xamante moo nekk tuba murtani di ko jaarale si bu baax nuyoo bi si moom di ko ñaanal tawfeex tuba Tuubaa baax a baax a baax di gën a di leen woo rek si bis xasida bi ñuy amal le 3 mars ñu mel waa kuréel Xidmatul Xadim si jiital Sëriñ Sidi Mbàkke ñu ngi si nuyu di ñu ngi si woo képp ku nekk bitim réew ak ku nekk Sénégal di di si woo président Ghazouani suñ ko tuddee rek mel ne na yóbbaane na waa ahlu Mauritanie yépp kon bis bi tamit bisub sant yàlla la bisub jaamu yàlla la bisub sant Sëriñ tubaa la ndax xasida yi lañ koy defal te xasida yi moom daanaka kenn ku ne defal na la loo xamante ni eh, kawe nañ sa njort kon ñu ngi si ñu ngi si ñu ngi si woo mbokki jullit yëpp si ndigal si jox ma si si si Sidi Mbacke kuréel si ndigal kuréel xidmatul xaddim Touba Mourtani axul xasaayit ah, di si nuyu bu baax suñu am sa Mbacke moo xamante moom moo jiita eh, waa yëpp ñu ngi ko si woo di si di si si woo Serigne Hamidou Mbacke moo xamante moo nekkal foofu si Sidi di si jëwrinam di di si woo mbokki taalibe yëpp di leen wax bis baa ngi noonu le mars xam ne maanaam bisub sant Sëriñ Tuubaa la bisub bisub jaamu yàlla la kon nañ si gën a góorgóor bu baax gën see eh, sàkku ngërëmu Sëriñ Tuubaa bu baax a baax jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ah, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax di jël nuyoo bi ak siyaar bi nag di ko tàmbalee ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ni moom la yàlla dogal mu jiite mboolem murid yëpp di ko ñaanal yàgg ak wér mu àggale lépp ci talak sago ci darajay sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ko ñaanal sëñ Sidi Moxtaar mi nga xam ni moo nu jiite foofu ci Mauritanie ak sëriñ Hamidou Mbakke mi jëwrinam ak mboolem jabatu sëñ Tuubaa gépp ñaan yàlla sunu borom defal leen tawfeex ak taysiir guddal seen fan wéral leen te lépp luy seen yéene rek suñu borom taxaw leen ci ba ñu eggale ci ko fu kawe seen njort te ànd koog taalibe yi di sof suñuy kàddu rek ci kàddu yi sëñ Abdou mi nga xam ni mooy jëwriñu xidmatul xadim euh, di soññ mbokki taalibe yi bu baax ci liggéey bi mbooleem daayira yi nga xam ni ñëw seq liggéey bi euh, muy fédération seexul xadim bi nga xam ni sëñ Madiop Diop moo ko jiite jiite mbooloo yépp mbooleem kuréel yi nga xam ni ñoo seq liggéey bi ci biir fédération bi lañ soqi sëriñ bi wax ni bànqaas la ci biir fédération bi moom kuréel xidmatul xaddim kon nun ñëpp nañ fexe àndandoo taxawu bis bi te xam ni bis la boo xam ni a ah, moom sunu defaru tey ak ëllëg xaj na ji te ndigal lañ ci am fépp am nañ ko ci sëriñ Sidi am ku ci am satul léegi lañ fa jógee ah, muy loo xam ni it nag moom ñun ñëpp xam nañ ni moom lu ñuy defar tey la di ñu defar ëllëg kon ñun ñëpp nañ ànd rek taxawu ko góorgóorlu ci kenn ku ne xam li la la ci war nga faxe ko taxawe ah, muy addiyee yi ñu ci war a def ak taxawaay yëpp rek ñu àndandoo daal doon wenn say yëkkateendoo tegandoo ba ci soxna yi nga xam ni mooy daayira maam jaare yi ne foofu ci Mauritanie ñom nyep ñi ngi leen di soñu di leen wo ci liggéey bi ak mboolem talibé yi gànnaar yi nga xamni ay waa ay mauritanien lañu di ay wolof ñi di ay nar muy mboolem ño xamni dal daal ñoo ngi doon jëflanteeg Serigne Touba seen mam ci seen mam ya ba tey jii ñoom ñu dundal diko and ak ñun saa su ne ñëpp ñu ngi leen di wa noadi bu wa zoerat wa atar rek ñi ngi leen di talal loxo ngir ñu ñëw and ak ñun bis bi. ak mboolem àdduna bépp fu fi waay ne ci àdduna rek te xaside yi ñor la ñu ngi lay woo ci bis bi ci taxawaay yépp nag ku munte ñëwit ñu ngi sàkku ci yow foo ne nga jàng fa alxuraan ci ay kaamil durus fa ay xasida ak nu mën a tollu nga fexe ba nu jot ci su ko defee loolu it day doon taxawaay boo xam ne day mel ni yaag noonu ñoo ànd bis bi kon loolu daal ñu ngi koy woo te ci ñëpp amuñ bàyyiwuñu kenn ak fepp ak ñëpp ñëpp la ñu woo daal ci bis bi nga xam ni mooy bisu Mauritanie di bisu xasida bi nga xam ne dañ koy amal le 3 mars bii ñu jëm incha allahu rabbana ci ndigalal sëriñ mun taxa jaarale ko ci sëñ Sidi maxtar mi nga xam ni moom mooy seen moom la ñu féetale gànnaar mu féeteeg nun ah di ñu taxaw saa su ne ci liggéey bi ak sëñ am sotu mi nga xam ni moom it moom la yàlla dogal mu féete wax xasida yi kon daal ñu ngi woo ñëpp programme bi nag xam naa moom trois 3 incha allah dañ koy xëyee su ko defee tàmbalee alquranul karim ginnaaw bu ñu tàmbalee alxuraan a ubbi ko ci durusu xasida ak yëkkate ay xasida ci mboolem kuréel yi nga xam ni ñoo nekk Mauritanie ak mboolem ku yëkkati xasida rek te ne fa ah ñi ngi leen di xamal ni nag maanaam sëriñ Ahmadou Mbakke moom Daaru Muxti mooy ñëw ngir waxtaane bis bi kon na ko ñëpp xam nu ñaan yàlla egg ca bis ba jàmm rek su ko defee maanaam sëñ am sa toot wax na ni dina yónnee ndaw incha allahu rabbana mel na ni sëñ mambay la ñu wax ni mooy ñëw teew ci bis bi kon ñu xam ne loolu lépp dana am ci bis bi ah kon ñu bàyyi loolu xel rek xam ne programme bi daal incha allahu rabbana jàpp nañ ni programme bu am solo lay doon am nañ sunu mbokki kuréel yoo xam ni it muy kuréelu Jeysun bu dakaar ñoom it am nañ yéene teew ci bis bi. kon ñu xam ni bis bi moom wax dëgg yàlla bis la boo xam ni dana kawe njort lool nuy ñaan yàlla daal àgg ca ak jàmm sunu boroom taxaw nu ci ba nu defe ko nu kawe sunu njort te léppit nu tàmbalee ko ci sëriñ bi yam ci sëriñ bi te am ci ngërëmal sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah